lancé ngeen benn message bu am solo bu jëm si jigéenu Sénégal loolu tam muy deuxième symbole bu xamante ne danañ ko retenir à partir d'aujourd'hui may profité si occasion bi ngeen ma jox pour wax ne xeex bi yaakaar naa ne soldats yi gën a mën a xeex pour que Covid 19 bi ñu gañe ko jigéen ñi la. bon nag ñu ngi dénk jigéenu senegal xeex bi xamante ne dañ ko war a xeex ak ennemi boo xamante ne gisuñu ko ñu tuddee ko Covid 19. parce que cat si dëkk bu doon ne ñaar fukk la dañu wax ne trois quarts yëpp jigéen bi mën nañu si jàppale bon ñu ngi compter si yéen pour loolu. amna ay mesures yu am solo ñu jël pour arrêter maladie boobu moy ay mesures yo xamantene pour arrêter transmission importée bi la parce que dafa am transmission bo xamantene importation lay ñëwé am transmission bo xamantene transmission communautaire lay doon bon ñaari forme de transmission yu ñu transmission importée moy ñu jël avion wala leneen jaar si frontière yi am ko duggal ko ci dëkk loolu ndëkk ñu ngi si lancer un appel pour que képp koo xamante da nga jóge si foyer boo xamante ne am na jàngoro bi rek boo ñëwee nga am citoyenneté boo xamante ne da nga war a signaler sa bopp loolu mooy aar sa bopp aar sa njaboot aar askan mais boo ñëwee xam li nga xam ba pare di nëbbatu bañ kenn yëpp yaa ngi gaañ sa bopp gaañ sa njaboot gaañ askan bon nag li ñuy demande ñooñu mooy ñu xam ne feebar bi du feebar bu ñuy ruus feebar bi lu gàcc grippe la grippe la boo xamante ne amaguñ lu koy fajj lol moo tax mu jara ragal mais grippe la bo xamantene ne supparaku bi dafa gaaw ak wàllaate bi dafa gaaw te buñ ci si jogul man na faagaagal ñi xamantene ñom ñoko am bond du febaru gatch mais febar bu dangereux la ndige ñett yi ma wax noonu bon tegg ko am da nga wara ñew citoyen da nga ne man kat fama joge amon na fa bon naa tëju fukki fan ak ñeent yoo xamante ne du ma jegeñ kenn te si fukki fan ak ñeent yooyu lu ma seetlu sama yaram rek naa woote waa Kër Docteur ñu ñëw loolu am solo la lu ñu war a wax suñu compatriotes yi xamante ne jot nañu fi dugg avant ñu jël mesure bi parce que mesure boobu bu ñu ko jëlee ba aar ba pare rek ñun suñu préoccupation mooy ñu jot ñëw te xamuñ leen ay sénégal lañ mais nañu signalé pour que nous ñu jël leen en charge mën leen jàppale jàppale seen njaboot jàppale askan bi beneen bi mooy transmission communautaire bu xasee ba dugg ba De commencé di law si biir askan bi xamante ne mosuñu transmission communautaire boobu nag il faut que ñu gérer ko nan lañ koy gérer mooy ñu bàyyi regroupement yeeg événement yeeg nuyoo etc. parce que bu ñu moytuwul loolu transmission communautaire boobu jàllul si li ñuy wax benn cluster parce que sa Touba la fa am neex na maîtriser parce que kenn moo wàll njabootam te xam nañ ñi mu mën a wàll ñëpp ñoo ñu aar leen téye leen si benn mais bu ñu moytoon nag boo benn événement religieux tax ba ñi fa ñëw ñëpp am ko ku nekk ñibbi fa ngay ñibbi day tas si réew mi te bu tasee si réew mi dootul nekk foo xamante ne xam nañ ne foofu rek la day jafee jàpp parce que lu nekk fépp day defee jàpp loolu motax transmission communautaire bobu ñu ngi koy endiguer par l'interdiction ay événement wak ay nangam-nangam ñu leen ci dimbali ñu leen si ñaan ngeen jàppale ñu si loolu jàppale ñu si loolu xew yeeg ngente yeeg et cetera et cetera ngeen jàppale si